leen di jéem a jaxase moo tax. kan yaas. waaw yaas day moom xamuma. tey du bésu jaxase bàyyi yee fitna. tey bis fa àjjuma la de. arrête ça. tey bis bu tedd la tey bis fa àjjuma. àjjuma waaw xam nga. bis fa àjjuma la dañuy julli ñaan yàlla suñu mm. dëkk bi jàmm sax si. ndax lii raam ca ñag la jot. ay ca nag ba la borom caqadul xeex ak borom baatu ne. baatu ne voilà. dégg nga loolu. Mm. boo yoroo bi réew yow yaa war di yow yaa sëriñ maa ngi siyaar sama maam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo ñëw ne ko kan mooy jàmbaar déggoo ma de xam nga ñun kuñ tuddee guerrier déggoo ma ki naan man xaw ma je euh, suis issu d'une famille guerrière xaw ma moom yooyu la bëgg ay ay tendi joor rek sàmba xaw ma buur daal yi mm. yonent dañ koo laaj ne ko kan mooy jàmbaar mu ne jàmbaar nekkul ne mooy ka yor jaasi di dagg bopp nekk ci fasu naari góoram naan dërëj dërëj ñu naan waaye kii mooy guerrier nee na kooku du jàmbaar waaye jàmbaar mooy ki nga xam ne Ahmed mii daa yéeg kaw Siré jël jaasi dara desul lu dul dagg bopp bi Siré ëlbati ko yéeg ci kawam nangu jaasi gi ne ko jéggal naa la yonente nee na kookoy jàmbaar waaye ngand ngand lu nii avec leur communiqué d'hier là naan am naa ay rajo yoo xam ne dañoo soxor dañoo iñaan dañoo mais on va sévir yow lay sévir en tout cas sëñ euh, mag ñi laajoon nañ ko loo xam ci jàmm. Mhm. mu ni jàmm de euh, gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën ci fi ñu jëm quoi. Mhm. sëñ Touba amul amul amul déggoo ñu naan jàmm ci leen lépp xëy. Mhm. mais xoolal boo gis nga boo gis nga sénégalais. sénégalais benn chaque jour yow de ko wan ne ko yaa mu féete kaw alxuraan sax ko jege wàcceel sa bopp rek borom bi wàccee la. dégg loolu. mais tant que yaa koy wan ne yow dinga nga noppi. danaan la du fi nekkee. loolu mooy dëgg nag si rek. Mm-hmm. yow yaay état. yow lañ dénk sécurité dénk la stabilité réew mi yaay dawal ay stratégie ngir lépp ni nii. waaye def yëfu Babacar Diagne. Mm-hmm. similaay Sall nga tëj télé. Mm-hmm. similaay Sall nga tëj rajo. similaay Sall ngay jàpp ay nit di tëj gis nga kaso. kaso du fowukaay. Mm-hmm. kaso. yéen kaso yéen wala kaso. sama góor ga nee na yow man xiyaam ñaar la njëkk a àtte sëriñ. Uh-huh. xam nga ñan lañuy ñuy njëkk àtte. Uh-huh. xam nga ngor. ngor xam nga du nit. ngor lañuy njëkk a àtte ak àttekat yi. déggoo ma de. Uh-huh. ngor la njëkk a àtte ak àttekat yi. ngor jikko la. àttekat yi ay mbindeef lañ kon suñu neexee ñu ne kon nit ñi kon attekat ñi la ñuy dëkk atte te lu fi waaye atte nag di nga ko atte fële alay salaaw bi xamil hakimin mhm. lu fi sa benn signature mën naa nëbb doomu aadama ci biir kaso giiru dundam te fekk waa ji deful benn signature mën naa libéré lu tolloo ñeenti téeméeri doomu aadama yu ñu tëjoon ci kaso bi mooy Macky Sall mooy grâce présidentielle mhm. waaye benn signature Samba Sall wala Mamadou Seck mën naa tëj nit ñaar fukki at ak juróom ci biir kaso te kooku deful dara kaso du fowukaay Macky nag xam naa dafa nekkoon opposant boo xam ni mosul ñam kaso moo tax ñoom seen nguur gi ñoom jàppewuñ kaso dara waaye nañ dem rek bisimilah yaas Sud Quotidien ñëw ak ñun ci mu ne ñu ajumay tey jii ajumay tey jii vendredi de tous les dangers parce que gars yi ñoom tey dañuy manifester opposition bi nee nañ dañuy manifester tey ci nii ak ci ne ngir respect de l' état de droit laa may dee ñuy tiitalaate waa Sénéra nag télé bii ma taxaw ci yeneen i réseau lañ koy am waaye lu xeetoog ay canal la kii ay TNT yooyu nee nañ ko tëpit fii trois jours le seen communiqué bi dañ cee bind ne boo leen soppeekuwul day ëpp daanu ñetti fan. ñoom Sénéra loolu lañ wax mm-hmm. daanu ñetti fan mais télé fi jamono yu ñu toll nii euh, dañ koy seetaan en mouvement. télé yëpp sax. déggoo ma de. te nombre yi nga doon am xoolal tey. ñu ngi ci treize mille nangam sax nag. quatorze mille cinquante ah quatorze moom kenn euh, xale yi moom dañuy euh, arrangé merci bien. ba pare sax sëñ Ahmed télé yi léegi xam nga lan lay jëriñ pour xale yi di seetaan Mickey. ci kër yi mais nit ñi seen kii yi dañuy seen télé. déggoo démb gars yi dañu doon tiitaroo sept mille yi huit mille. tey introduction nga nekk treize mille maanaam deux fois lële li waral loolu xam nga mooy lan. parce que ñi ca kër yi dañu leen a xañ télé bi ñu daw ci portable yi. bilaay bilaay. dëgg loolu dëgg. Babacar Diagne daa daa riir. waaye ñooñu ñoom du ñoom duñ dara. li daa bari. non dañ leen di yónni et puis li leen raw dafa bari. Mhm. Macky Sall moom ku nekk war di tëj ay télé ak rajo ba mu des moom bu dee nit ñi dañ koo bañ dina leer source a ñëw ñun ci xam nga tey lan la mbir mi di joxe xam nga ko mu hmm. ngi nii maalaw ak raay ba maalaw ak raay ba maalaw bëggul gis raay ba waaw hmm. parce que arrêté metre Ousmane Ngom bi gars yi nee nañu ñi ànd ak Ousmane Sonko dañuy organiser marche tey hmm. sans ou avec l'autorisation de l'autorité ñoom dañuy marché tey raay wi daal raay wi daal tey dinañu ko jéggi ñu xool nag ba xam loolu dana nekk waaw wala déet dégg nga loolu réew mi ko tijjee ñëw ñun ci Ndakaaru ak biir réew mi c'est des manifestations fépp daal banlieue ba wàcc na RFM dañ koo caxat-caxatee daal di koy taal magasin wu Auchan yi kenn waxaalewul seen mbir station Total yi ñu saccagé ko gouvernement bi nag naqarlu nañu nee nañ mbir mi ba pare nee nañu dañuy compter poursuivre ñi nga xam ne nag ñoom ñooy def bu yii ci biir dëkk bi. nervi yi ci lañu bokk. waaw waaw léegi nervi yi lu tax ñoom duñ leen jàpp. nervi yi bokkuñ ci. si <laughs> lañ bokk de. wala mm. ay hors la loi yu yor ay yat ak ay jaas. moo tax Bougane Gueye Dany ne. dafa am ay civil ay kii policiers yu civil yu nekk. waxuñu dëgg dama ne. Eh, dama ne Bougane Gueye Dany nee Bougane Gueye Dany nee na ci yéen kaay gi suñ demee bay jël ay bi loolu mooy wane ne suñu sécurité benn sooxe na ñaar mais suñu ministre intérieur lajj na booy benn ñaar njiital gëm sa bopp ne buñ demee bay jël armée renfort mais armée amul grenade fetal la yor balu fetal armée arme la yor kon y'a problème ah, dëgg la wala dëgg box bi li ñun ci xam nga ñaari nit la ñuy wax ne ñoo dee vox populi nee na trois la. Hmm. lim ngaa ngay yokk de. ñetti nit a dee. xam nga kenn dee yëmbal. Hmm. keneen dee bi ñoo na hmm. muy góor nee na Parcelles Assainies ka fa dee rumbuxloo bi dafa am ñoo xam ne ñoo leen rax yor paakate xale bu jigéen la jam ko. jigéen la waaw. Ah, mooy troisième personne bi. nii ubbil journal bi ci biir. ku jigéen la ñu jam. <laughs> damay liir ci biir. sëf la. ci biir dafa koy. naka bënn nga ca biir. dégg nga mi ngi nii ñu daal di koy ñu daal di koy wàcce réew mi nag démb ci safara ak deret la lalu mu ngi nii waa front de résistance baa ngi nii waaye patron de presse yi naqarlu nañu li ñu def seen TV ak Walfadjri